bu ñëwee ci li nga xam ne mooy déclaration a Seck bi nga xam ne waajal na ko ay fan ba def ko euh, bërki démb lan nga ci jànge waaw man de li ci jàng mooy dama koy bañ wax rek ñu jàppe ma ko ñàkk teggin waaye li ma ci xalaat moom bëgguma ko wax ah. waaye bu doon sama mbok hmm. ma bokk ak moom dara ci waxtu bii ma toog wax ak yow dinaa wut ab spécialiste wax dëgg yàlla ah. waaw ma siifurul ma ko pour waaw waaw waaw parce que man li may wax moom ku ku ku am xel da nga xam da nga xam li ma bëgg wax lan la. waaw hmm. ah, ko ndax gis naa ne daal. Hmm. Euh, am na problème problème bi mi ngi koy bëgg a yóbbee euh, loo xam ne baaxul. Hmm. problème mooy 2024 bi muy nangoo wan gannaaw. waaw euh, maanaam daa la ma amoon nga xam ne c'est le minimum xaw ma pour cent xaw ma. waaw bu koy nangoo wan gannaaw. dina nga wan mu nekk vainqueur bi a loolu lépp mën nga ko mm. dañ na ko ne rek yow lii boobu beroo état ngay wuti te boo ànd ak ñu 2024 daañu la jox état bi ah. ndax gis na ne Sonko mi ab ab ab ab boo xam ne opposant radical la bu ko mm. joxee nguur gi du met du neex ci moom ah. te xuloo woon na ba pare fi ne bu ko joxee nguur gi wóorut xuloo mm. woon na fekk Khalifa Sall boo joxee nguur gi wóorut mu ne ko kaay bu ñu bu waxtu waa jotee bu ko defee li ma am su ma ko dajalee li nga am benn force politique mooy am Sénégal hmm. muy maa jël première yaa jël deuxième force politique boobu ñu ko dajalee bu 2024 dañuy tànn dañ lay tànn nga doon président nga président hmm. dafa bàyyi moom ñaan ñaan moom ñoom dañoo dañoo resté ñoom fañ fañ nekkoon hmm. aussi Macky Sall am na ñoo xam ne bi ko Idrissa Seck restreindre ñoom itam dañoo dañoo reculer parce que mbir mi xamuñu lu leen di Mm. xam nga la ah. lii nag bi mu dajal lii nag bi mu dajaloo militant yi yëpp dañoo xool xam ne xamuñ kenn ku ne ci géew bi ku Ousmane Sonko ñu bari ci nit ñi daal koy respondre ah. léegi nag la ko Macky Sall dafa xam ne la mu ko digoon jamono ba mu ko moom moo ko moom Mm. waaye waxtu wii moom nga xam ne dig ba egsi na te mu war ko ko jox la ko war a jox te diggoon ko moom na muy ki nga xam Sonko moom itam dafa war a xam ne dafa nekk loolu mu xaal mm. lu mu xaal mooy Macky Sall du ko mas a désigné comme candidat benn bokk yaakaar parce que ah. wóorut mu di ko désigné ci koo xam ne yow sa dëkk képp ba nga dëkk ba ci say bureau doon mënatoo koo gagné kooku bu lay désigné nga nekk candidat moom nan la koy nan te yaakaaru ci woon loolu yi loolu indi ci leeral de nee na ñoo ko doon ay membre di ñoo xam ne ci réew mi lañ bokk ñoom ñoo def sabotage bi ngir wan ko ne Yankhoba Diattara mi mu jiital mënu fa dara waaw ah, xam nga wala def day xam ne bi lay amee ba tey kenn sonnatul waaw yaa ngi dégg sax ko wax jiitaloon na Yankhoba Diattara ay jamono yaa ngi yaa nga ca Thiès. mooy ca seen eh, élection élection locale yi nga xam mm-hmm. nga. Mm-hmm. kon Yankhoba Diattara moom du tey lañ ko mas a jiite jiitaloon nañ ko mu jàll lii nag aw la mu bëgg a daj ci loxoy nit ñi. Mm-hmm. waaye loolu sax daa lu ko gën a neex mooy bu sukkandikoo ci kàddoom moom. mbir mi du metti ci nit ñi ndax da ne moom bu amee 6300 dootu politique waaye da ne sax bu ko gañee Thiès kon moom yàlla daa dogal yaar yi mu tànnoon na yii yëpp bu ci am day bàyyi politique daa caag hmm. waaye boo gisee muy muy dem ci sonko naan waa gis na ma sonko waaye li wax ak moom seen yoon nekku ci ñun wax dëgg yàlla li wax sonko suñu yoon nekku ci wax na hmm. a nekk du ci mas a te lu mu ñu wax moom dafa jëlee it gëmuñu ko bu hmm. bu ko ko bu ne gis bu ne gis ma sonko na gëmuñu ko bu ne sonko bon na gëmuñu ko bu ne sonko ngi dund gëmuñu ko bu ne sonko dina gëmuñu buñ ne Euh, li mu wax ak moom yoonam ne ko ci mais tamit nee na manifestation yi buñ ko interdire dafa mel ni waxam ji moom moo tax seeti bi mu seeti woon usman Sonko moo jur loolu. kon manifestation bi xam nga moom daa xamul li xew li xew la xamut. waaw dafa jàpp ne suba Ousmane Sonko dañ koy aaye élection yi. Hmm. muy gàttandu maanaam cofeelu patriote yi ngir bu ñu aayee seen waaye élection. Hmm. ñu xalaat kii kat day mel aaye gi ñu ko aayee élection yi moom ko. gannaaw bu gën Louga te moo fi des nañu ànd ak moom maanaam occasion bi amul 2019 la jàpp ne mën aussi nee na mi ngi soutien. Hmm? Euh, candidature Ousmane Sonko. waaw waaw mooy ma la wax rek li tax mooy daa ah. hmm. moom moo jàll kon nañ nañ hmm. loolu lay carte. waaye moom candidature am bu jàllee sax Macky Sall amul fula. moom Idrissa waaw. ah tax lool. parce que li tax mooy Macky Sall moom mooy jëmmi Idrissa comme kuy lay doon. waaye du am ku koy wateel mukk mos mos a 7 pour cent bi ko journaliste daan tooñee. waaw ah. ndeel xool ba dem ci élection dana dégg lu raw 7 pour cent. Hmm. ah parce que nekk na fi naan waa dinaa leen wax wax yàlla wax yonte wax leen waxi Serigne Touba. wax yàlla ak wax yonte waxi Serigne Touba jamono ba mu koy wax dañoo waroon ne ko dañoo waroon ne gëm naa ko. waaw dégg nga. Hmm. ñi ànd ak moom di ko ànd ak moom di ko gëm nañ la gëm nañ la gëm nga ko ci gëm gi ko gëm itam ñun ci lañ ko gëmee mu dem ba mu wan leen ne kat ay la yéwén dama leen wax gëwuma ko wax yàlla ñu wax gëm man wax ma gëm mooy li ma ndax bëgg ma ànd ak Macky te ñu dewal bëgg ñoo gëm waaye waa nan laa laa yeddi kay dal xaa'inin yàlla du jubal pexam warkat te alxaa'in nag gis nga sëñ Fall waaw Idrissa mhm. ndax yonte daa wax ne lu tax lool yonte bi daf ne waaw al muminu mhm. laa yal daxaxu sox baanu mar dase mhm. mu ne ku gëm ci dëgg-dëgg nee na jaan wuru laa mat ñaari yoon ci mel na mbaax na mbaax Idrissa Seck nag politique bi wax na ba nit ñi ne ko yàlla ak yow ngi dégg mu xëy génn du man diggaat bëgg fexe ba nit ñi ne ko yàlla ak yow képp sa pas-pas euh, buñ ko gisee ki nga xam ne daanaka mën nañ ne defal na ko lépp muy Abdoulaye Wade mu attaqué ko attaque yoo xam ne daanaka attaque yu tar la naka nga gisee attaque yooyu nga xam ne bi mooy dafa yëg ne dafa ah. yëg ne Abdoulaye Wade mhm. joxante na ak Macky Sall bopp ah waaw dafa yëg ne mhm. waa Benno Bokk Yaakaar li bëgg gën a soutenir mooy Karim Wade mu jàpp ne ñii dañoo ñëw ngir jël place am loolu lay mer moom loolu lay mer moom dig bañ ko diggoon gis nañ ne dafa illégitime hmm. pour lañ ko diggoon moom moom moom moom moom moom mën a wéy ndax doyatu leen moo bëgg a jël place am kooku day gaaw artu ci nit ñi ngir ñu wan ko gannaaw bu ñu ko Ablaye Wade naan du nit ko wax wax dëgg moom hmm. moom moo jëkk a war comme fen ku ne da ngay transmettre moo de njëkk a transmettre hmm. waaw. ñëwee ci li nga xam ne moom mooy plateforme bu bees bi nga xam ne euh, ñenn ci société civile taxawal nañ ko muy. Euh, plateforme buy xeex li nga xam ne mooy article L. rek ak tamit euh, yeneen i forme de lutte yoo xam ne ñi ngi ko tënk ci biir naka nga gisee loolu. Ousmane ko ànd na ci aussi. waaw Ousmane Sonko xam nga dañ ko yàgg nax moom. ba mm. fàttali ko atam biñ ne maanaam suñu milliard du rees. waaw du moo leen woote la woote ba ñëpp ñëw. effectivement jàpp ne Ousmane Sonko ah. bëgg a jël ñoom kàddu patriote du dañoo bañ ndax dañu politicien du fi wax. waaw Ousmane Sonko deful sorte naan di sufu sorte di ko naqarlu. kon ñoom kon ñoom dañoo fexe koy defaat dañ koy naxaat. Mm. waaye gis nga man bu doon maay moom dama ci sama bopp laay sukkandiku ak yàlla. Mm. gis nga yonte bi fi nekkee di xër ngeen bëgg ko feet yàlla da ko ne yaa ayyuhan nabi xasbuka allahu wa man ittabaxaka minal muminin hmm. waa jële yonent yàlla muhammadu hmm. doo doo yàlla doo yàlla dooloo ko ak ñi la topp ci ay julit mbooloo mi lu ñu bari bari bari te gëmuñu lu itam boo leen dugalee seen biir dañ lay war kepp hmm. sanson ko bu gëmee ne seetu ñi ñoom ñi xam nga duñ bëgg indi fi benn débat pour jéem a fës nii nguur gi woo leen ci ay négociation yooyu doo ngu lañ bëgg moo lañ ko defee woon bañ ana dossier boobu foo ko déggati mooy boo gisee loolu nguur gi ñoo taxawal ñoo taxawal société civile bi fi ne ni gis nga article 29 bi ñuy wax nii mm. ah, ci ci maam dañ koy dindi ji ñoom ñoo leen wax ne kaay leen kaay leen kaay leen songuñu ah. kaay leen songuñu ah. ñu bu ngeen ñu songee ngir ñu dindi ko ñu war na ñun ay démocratie la ñoo doon dajale ne leen kaay leen songuñu kon xanaa du soreeg li nga xam ne waxoon na ko Ismaïla Madior Fall na ko euh, fexeel noo def ñu mën bokkaat lu mu la gis nga lu mu bëgg mm. moom Macky Sall am na fu muy jaar ba mu bëggee fexe ba jubóog Ablaye Wade waaw te sëñ Muntaxa la jaar ma saa ja ba mu bëggee génn Karim Wade ba mu bëggee génn sëñ ba Sall hmm. Xalifa Sall te sëñ Muntaxa la jaar moom day def lu mu bëgg rek dana xam fi muy jaar ngir loolu am hmm. maanaam gis nga article neuf bi moo ko defoon waaye dégg-dégg na dindi naa ko du ko man faaw mu sàkk ay nit ñoo xam ne hmm. day mel ni ku àndut ak ñoom te ànd ak ñoom ñooy taxaw exiger loolu exiger exiger loolu te ay gaayam lañ moo doon yabal laa tadxulu baabin waahidin wadxulu min abaabin mutafarriqa waaye nag wa maa uxnaa ankum min laahi min shay'in inna al-hukma illaa lillaah Yuusuf dafa ne woon doom bu ngeen demee ca Misra hmm. comme yéen yeen da ngeen niroo doon ay ponkol yu am jëmmu bu ngeen di dugg bu leen bokkandoo ci benn bu leen duggandoo ci benn bunt da ngeen tasaaroo ku a catu a comprendre ne yéen a ànd waaye yàlla nee na bi seen pexe mi muy teg moom moom yànqub yëriñul dara ndax ba mu demee doom ci ñaan Benjamin des na fa hmm. ah, des na fa waaw bu ñu bu ñu desee ba tey ci li nga xam ne moom mooy euh, mbirum euh, mbirum euh, article yooyu nga xam ne wala boog euh, plateforme boobu nga xam ne tënk nañ ko ñu gis ne tamit euh, ay bugaan ak euh, yeneen ak yeneen ñoo xam ne daal nemmeeku ñu woon seenu ànd jàppoon nañ ne duñu war a duñ mën a ànd. waaw ku ci mel ne bugaan ak Ousmane Sonko ñu nuyoo fa ce que tamit mënuñu koo jàppale. waaw loolu waaw loolu la gëppatal gi gëppatal Sonko rek. Ah. waaw Sonko. Sonko est-ce que jàpp nga na lim am nii dara mën na ca dolli ko wala dara yàqu ci. Sonko lim hmm. yor mooy li gaa yi mais tamit li ñuy xeex bu fekkee ne. ay conviction la dañuy wax rek. xeexuñ dara article wenn waxuñ dëgg xeexuñ dara xam nga xam nga lu xeex loolu du xeex bi billahi waxuñ dëgg xam nga lu xam nga luy mbir mi hmm. ay ay surgay Macky Sall lañ laa la wax